rawatina sage-femme yi ñoom ñëw fi dellu si di tuub di toroxlu di ñaan sa ndimbal ndaxte ñun ñëpp yëg nañ ne am na suñuy naataangoo juróom-benn sage-femme yoo xam ne ñoo ngi leen téye sa Louga. loolu daanaka yëngal na réew mi ndax sage-femme yu si bari fi mu toll nii si Sénégal am na si ñoo xam ne liggéeyatul ñun nag Touba fas yéene wuñ loolu ndax ay taalibe nañ moo tax ñu ne Mbàkke tey dañoo ñëw si tuub ñaan ndimbal nga def ñaan pour jàmm dellu si waat si bërëbu fajukaay yi pour sages-femmes yi mën a delluwaat seen bërëbu liggéeyukaay ndax sonn nañ lool fépp fu ñu nekk di liggéey nit ñi fekk leen fa di leen xoqata sëriñ bi dafa wax ne dégg na ko incha allah rabbi lépp lu ci war incha allah des na ko def kon mi ngi leen di sant bu baax liggéey bi suñu borom defal leen ci ndam ñoo ñëwoon en tant que taalibe ñoo seeti sëñ Muntaxa man a waxtaan ak moom bu baax ci li nga xam ne moo xew ci suñu secteur bi muy santé ndax ñun ay taalibe rek lañ war nañ lu ñu jaaxal ñu war a ñëw ci sëñ bi wax ko bala ñoo jël benn décision la preuve année que boo xoolee Sénégal gi yëpp bari nañu grève mais Touba gi service minimum lañ wax urgence yi ñu koy jël hôpitaux yi ñu ngi liggéey poste de santé yi ñu ngi liggéey ñoon ci sëñ Mountakha nag di sàkku si ñaan ci sun ay collègues sages-femmes yoo leen a téye depuis talaata mais nag emprisonné guñ leen dañ leen def garde à war leen a jugé mercredi allah ñu ñëw di sàkku si ñaan ci sëñ bi pour mu gis si ndox mu sedd ñu génn delluwaat ci seen ay ite ndax place sage-femme kat du prison place sage-femme ca bureau yi la place sage-femme ca causerie yi la place sage-femme ca case euh, kii euh, salle d'accouchement yi la loolu moo ñu fi indi woon tey te côté moom li xew Touba moo xew fépp dañ nag ñun ñaxtu dañoo warul déggoo li ma commencé dañ ñun ñaxtu waruñu ñun lu ñu gis rek dañu ñëw ci fi ñu ko war a jooytoo jooytoo ko fi ndaxte bin bin gisul lu ñu xam dañoo àndandoo sage femme Fawzeyni ñu ngi fi wu ndaamaatu ñu ngi fi hôpital bu bees bi Xaadimatu Xaadim mu ngi fi poste de santé yëpp ñu ngi fi ñun lu ñu jaaxal dañuy ñëw ci kin ko war a dis dis ko ko bu boobaa am saafara ko doomu aadama yàlla moo ko binde ak matadi loolu ñun sikkuñu ci kenn ku nekk ñu ngay jugé ndax bu ñu benn nit bu ñu benn nit euh, ŋàññee fukki nit sant nañu sunu borom mi nga xam ne moo am fay borom dëkk bi nga xam ne mooy liggéeyal moom la ñuy liggéeyal moom la ñuy sàkk ci moom fay te danañu fay ñun suñu ñàkk du mas ndax dañ koo def ci xol bu sedd guy xol bu taal ndax métier sage-femme c'est pas facile kon nag dégluwun li nga xam ne la nit ñi di wax ndax àdduna noonu la daanu dajewul suuf ñun fii day dëkku dëkkub taalibe ñun amuñu lu ñu seet ñun bu amee lu ñu jaaxal dañuy dugg wax ñun ko war a wax ñun suñuy kilifaa ngi ci dëkk bi sëñ bi mu ngi fi suñu amee lu ñuy joyti dañuy dem joyti kon plateau technique bu insuffisant ju ñun waa Touba ñoo koy déploré mais li xew Sénégal ñëpp gis nañ ko mais ñun contexte bii ñu nekk moo ñu mayul ñuy ñuy ñuy dénoncé dara di wax dara ndax ay taalibe la dañuy sukkandiku ci taalibe dox ci ndigalu taalibe di rafetlu bu baax a baax rek eh, lii nga xam ne sage-femme yi nga xam ne ñoo nekk Touba moom la ñu def tey ndax loolu euh, yàgg moo daan doxal réew mi moo daan indi jàmm nit bu demee ba am jaaxle wala mu tiit wala mu amam lën dem ci kilifaam ne ko nu may def fii laa toll wala lii moo xew lu ndigal lum ca jëlee jëfe ko loolu moom la moom la àddina doxe ba tax lu ba jàmm ju bari di am loolu nag ñu di ko rafetlu bu baax a baax ñu ñëw tey fekk fii ci sëriñ bi ñëw doon ko siyaare si waaye doon ko jooytu seen i nemmat nemat yi ñoom wax nañ ko lenn benn ci seen natt ngom yi nga xam ne suñ borom teg na leen nattu moo leen tax a jóg ak lenn ci fexe ba ñu jàppale leen li seen liggéey gën a rafet loolu rek moo leen yëkkati woon sëriñ bi wax nañ ko sëriñ bi sëriñ bi nag seen siyaare bi siyaare bu ko ñor la ndax lim leen wax rek képp yëngu bi ngeen di yëngu ci wàllu wér-gu-yaram moom loolu ndimbalal suñu borom la ndax ak jagle la ka yàlla mi bind doomu aadama yi bind la ngay doomu aadama ngay xettali doomu aadama loolu bokk na ci ndimbalal suñu borom tabaaraka wa taala ñaax na leen ci loolu soññu leen ci waaye sant leen sant bu baax nag dalal seenam xelit nag ci lépp loo xam ne seeni tawat la wax na ne sax dana fa yónni Serigne Cheikh Abdou Latif mu ñëw waxtaan ak ñoom ñaax leen dalal seen xel ngir ñu mën a liggéey bi ñu gën ci góorgóorlu gën ci jàpp naam ay jàmbaar lañu waaye ab dong nag faw nga di ko ñaax.